Wally Ballago Seck démb annonce ko ci inter ci réseaux sociaux yëpp moo xam Instagram Facebook li ak ci Snap ak nga xam ne nii yàggoon na di ko xaar ci digganteem moom ak ki nga xam ne nii moom moo nekk bàyyi Mass xam ngeen ko amoon na ay coow yu sew ba mu di sax ñoom ñaar ñu ànd daal di koy def benn son Wally Ballago Seck daal di woo Baye ñoom ñaar ñëw daal di def son yi mais xam nga ne avant son bi duy daw Sénégal yi bëri ñoom ñaar TikTok nañ ko challenge bi comme tout lekk male Euh, mën naa wax ni sax son bi Sénégal yi fu mu toll nii mën nañ ko te pour temps génnagul waaye vendredi incha allah à part 18h lañ nar a gaanaam gis lii di son bi complet gis tamit li nga xam ne mooy clip bu rafet bi nga xam ne ni yaakaar nañ ni dina si am lu génne lu génneegum nii rek euh, rafet na trop ñu tuddee ko yaa tay mais am na leen li nga xam ne ni tamit il faut que ñu waxtaanee ko parce que am na li nga xam ne gis naa ko si te loolu ma gis moom laa gisoon si clip bu day astafurlah maanaam Viviane wax laa démb Viviane doon waxtaanee xaytu nanaa bi euh, si diggante Mia ak Wally Ballago Seck ma xool ndax nanaa fu mu tegoon tànkam lu naan euh, fu mu tegoon tànkam fa lay tegaat fa lay tegaat la mooy problème bi ba naan nanaa fu mu tegoon tànkam lay tegaat tànkam la ko man nag kaay wax la gis nga fii. Hmm. faruma fara farafeña laa man faruma fenn. nit ku fi def lu dul yoon. dama naan la defoo yoon. alors def lu yoon ma ne la def nga yoon. bi ne si c'est bon nañ dem sànni teaser bi nga xam ni nii Wally Ballago Seck génne na ko démb ñaa ñëwaat si plateau bi ñu gën ko waxtaanee ak ki nga xam ne mooy Ousmane Ndoye nii Baye Fall ak Nana. ah bon benn yoon la ah c'est pas grave alors moo ngi noonu di gis seen teaser bi nga xamee nii Wally Ballago Seck gënee na ko Ousse bàyyi xale bi ngay xool yaa ngi fixé wu nii rek di gën a gën a gën ah alors même noonu Ousse son bi waxtaan nañ ko fi waxtaan nañ ko ba sax ki nga xam ne nii sax moom moo nekkoon euh, bay Mass sax woote na fi ba expliqué maanaam son bi lépp si am tey vendredi la mu nar a génn incha allahu rabbi mais son bi mun naa wax ni Sénégal yëpp fu mu toll nii sax mën nañ ko peut-être leneen lu si euh, déggugul mu ëpp sax mais mun nañ wax ni euh, la majeure partie des Sénégalais TikTok nañ ko challenge nañ ko ñoom nanaa ñoom ñëpp challenge nañ ko fu mu toll nii ñoom Yolande sax. waaw ku nekkat ni mel. man moomoo xanaa xamoon ni àdduna li ma gën a métti ci sax amoo àdduna man man bàyyante moom mooy gën a déranger ci àdduna bizarrement moo la. comme <coughs> maanaam man ma sekk ak jigéen maanaam ñu nekk quoi moom mu euh, partager ay bonheur nekk mu xam ma ma xam ko maanaam ñu miinante dëgg-dëgg après mu jékki-jékki kii aw nii kii aw nii man. du la neex. kii boobu aw ma <coughs> daf may xaw a doxloo moom ku nekk nag ak sa jikko. Mhm. daf may xaw a kiilo mais macha allah man nag wax dëgg fa yàlla Baye Mass laay félicité. waaw. faut qu'on ma ko may ay cœur Baye Mass ah. des cœurs pour Baye Mass. man je félicite Baye Mass. waaw surtout. c'est. <coughs> dama koy féliciter bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. xam nga lu tax. Mm-hmm. ci yar gi. ci teggin gi. ci dal gi. ci correct bi ak ci mën gi. ba pare nangu ki yàlla jiital. ci laa koy féliciter. Mm-hmm. Wally Seck woyoon na ndaanaan day nangul ndaanaan Baye di ndaanaan kull fadrin ci génération yàlla dogal mu ànd ak ndaanaan bañ jëf-jëfi ndaanaan kon Baye yaay ndaanaan te lii may wax waxuma ko ngir yëkkati ko ndax moom ku ko yëkkati jug na ku ko yëkkatiwul jug na ma nga ca kaw ba noppi. ndax avant Duyoom ak Waly wala avant leneen ak Waly Seck Baye daa doon Baye Mass. Mhm. a tax mu <laughs> doon benn maxu poobar mhm. ay preuve am liggéey liggéey bu mhm. def lu neex ba gis ko ba ko partager ak moom loolu job la. wax ju bëri mayewu ko tërërër yi mayewu ko yeneen ak yeneen mayewu ko yàlla dogal mu am talent bu exceptionnel Baye Mass mosu fee génne su ma juumul loo naan accam non lu bon Baye Mass ba mu génne nit ñi cons ko mm-hmm. te boobu doyogul lu mu génn nit ñi apprécier ko lu mu génn ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax man nee naa la maanaam waxtaan la Baye Mass di def ci li may gis nee naa la keroog wax naa ko fii. Mhm. ne la moom buy woy damay yëg yàlla ndax tawxiid gi muy woyee. Mhm. man la engagé. Mhm. soppee Seydina Muhammad la sallallahu moo tax li muy woy man daf may daf muy dugg au fond. macha allah. loolu kenn du ko werante parce que moom moo tollatuñ fu waali di sekkee kenn mbir ñuy promouvoir waali ñun. surtout loolu euh, fii ci Sénégal. Ousse dafa mel yow sama xel bi nga nekk di ko. Ah, man man man man bokk. Mhm. parce que Wally soomeem Wally fi mu jëm taxaw fii di ko détaillé daf nuy sonal day jël suñu temps. Mhm. Wally moo la gën a xam fa mu jëm te dafay àgg maar. macha allah. Wally moo la gën ma Wally maanaam somme bu doon somme moom sommeem jeexal na ko. non mhm. oh, des na la tuuti. waaw waaw waaw yow daa je bu ma indi bu ma indi leneen maa ngi ci sama wax non bu ma indi ay des na ak des na man maa des na ndax yow sa des nga jàpp yow non non yow sa sa wax sa des na man desul non non uus na des na waaw léegi léegi léegi moom doonal man kon yaa ngi fer doonal man des na uus léegi man ma ni desul nga ni des na yow nangu naa sa des na nangul ma sama desul ñu continuer mais mais mais bu wax logique wax bu metti non d'accord mais yow bu wax logique ça dit que moom nee na des na man des na dëgg la nangul naa la sa des na man desul nangul ma ko ñu avancé kon da nga da nga bëgg jàpp ne maanaam Wally Ballago Seck kon ça veut dire que fi mu yem nii pour yow bu ay bu yemoon fii comme ni koy waxee nga ko war a bu fi yemoon sax mu neex d'accord d' accord d'une part suñ ko doon mais d'une part maanaam mu développé ça veut dire que autre part jëm am na leneen yoo xam ne am na ay projet la am na leneen yoo xam ne tu as fermé ta gueule pour m'écouter bien. d' accord déglu naa la bu baax a baax je suis tout d' accord avec toi de quatre vingt soixante neuf pour cent. merci beaucoup kon thank you. mais ma ne sama boss nangul ma ko maa ne àgg na. d' accord ah d' accord. maa ne waa li jeex na basta finito lii fi xew nii bu doon bu doon coupe. Waly jël na coupe bi jël na coupe bi jox leen ko dese ndamam muy honneur am. mais man ko mooy on veut yow yaa veut man maa ko man man laa wax damaa lijjanti yow sa on veut ak veu nana ak veu Pascal ak veu Waly Seck sax lijjanti wu ma ko man sama veu laa lijjanti man maa ni nii nii nii man man nii bu fi yemoon sax neex na man mhm. Waly Seck li mu fi def yëpp man maa ni nii neex na. man. Ah. léegi yow am nga droit nag ne ne ne ne ne ne atteindre ragul man objectif am man ci man laa ni waali mate na ko doonatul kuy kum fiy nekk ñu naan ko maar nii maar ne maar ne barki démboo jaay conférence de presse am yaa ngi fi maturité bi mu waxee dégg nga ko mhm. waali fi mu toll ku dégg wax nag laa wax waxuma ñuy wax nii pour bëgg wax ku dégg wax ñëpp dégg na li leen waali seek tontu tontu na leen ci disque door bi ñu doon wax tontu na leen dégg ngeen. tontu na leen ci relation ak ay artistes dégg ngeen. ku bëgg a dégg nag laa wax xaw ma nag ku bëgg a mais ku bëgg a dégg dégg nga wax la ci promotion fam ci aw kon Wally man Ousmane de un man sama man man ni may dundee doonatuma Wally bokk fekk kenn son wala clip may ciy promouvoir Wally xam nga d'accord avec toi damay fexe kam ko bokkal ñaanal ko bañ suivre ko ci ba àgg ci benn sommet. ba àgg sax su ma sañee sax mu raw Wally Seck naa mu raw ko daa yombul nag maar. su ma sañoon sax nga mu ne nii pour maanaam pour mu va bu dee Wally Wally Wally Wally bu ñu doon mayee dix. Wally may nañ ko dix sur dix ba plus ko vingt. d'accord dégg nga ma. dix sur dix ba plus ko vingt. kon boo fa taxawee da ngay sonal sa bopp. bu doon bac Wally daal libre la def te am na d'office. am mention jël premier du centre. te booy dañuy nekk examen. voilà donc il faut mu jàppale pour ñu am. merci won leen nan la ñuy defee mathématique bu jub anglais bu dëgër. ça c'est sûr. ça c'est sûr man nigga merci beaucoup alors euh, Nana vas-y. waaw euh, Momo. Mhm. Euh, boo seetaanee clip bi rek maanaam teaser bi du moins autant pour moi mhm. da ngay xam ne c'est du feu c'est du lourd xam nga da nga Norine daf la corriger ne la. refrain bi la sénégalais yi mën looy laaj. non vas looy laaj. laajuma leneen yow waaye doo arrêté. <laughs> sama yoon sama yoon fukk monsieur yow rek. donc wax muy nii daf la daf la daf la corriger ne la refrain bi peut-être la sénégalais yi mën. te man je pense bel et bien que j'y crois même sax bu ma neexee ma wax ni gëm naa ni euh, li nga xam ne xamaguñ ko ci son bi découvrir guñ ko. moo dàq fuuf refrain bi ñu déglu bi ñu jot déglu. j'en ai la certitude. donc euh, balaa ko Seck comme Baye Mass ay artistes lañ yoo xamante ni ay artistes complets lañu man gis naa ko ci ci ci ci ñoom ñaar ñépp waaye comme comme comme ni ko Nouré ni waxee rek Wally mm-hmm. bërigo ci mbartal la puus mu dem puusul mu dem mm-hmm. bi ci topp mooy ak lu mën a xew ak lu mën a xew waali mi ngi bay waaram ci wàll wi muy yëngu ñu bëgg ko ak ñu bañ ko fexe na ba moom foo foo tourné boo tuddee ñaari artiste di nga ko ci boole muy ñetteel bi te loolu doomi coon maay doomi coon Seck defu ko ko dafa ñëw pour ne man je suis Wally Ballago Seck je suis moi ñëweewul turu coon balago sekk de parce que bari na fi moom moom keroog sax mi ngi koy wax ci benn live fam ne man damaa teel a génn sama kër bàyyi loolu nag jom la ak fulla goo xamante ni nit a koy amal boppam loolu wolof naan juddu bu rëy ndey ak baay waaye fulla ak fayda boroom mhm. te euh, Aïda Samb dafa woyoon woy wu doy waar muy bu la sa yaay mayee bu la meree damoo la ko bu la sa baay mayee bu la meree damoo la ko mm-hmm. bari na ñoo xamante ni seen alalu baay la ñuy tiitaroo ça na ci ñoo xamante ni seen i baay bu ñu dëddoo ñu tonk parce que amatuñ lañ daan lañ daan am ak néew ci seen i baay lañ ko daan jëlee jéemu ñëw mënal seen bopp loolu dalul waal yi donc gàcce ngaalaama moom rax ci dolli moomoo man pro euh, projet bii lu ma lu ma lu ma gën a yitteel lu tax sax ma gën a fonk waali ci la bokk ndax gis nga moomu mu yow di man di keneen ak keneen kenn ku ci nekk am na situation yooyu toll dangay bëgg mag mu jàpp ci sa loxo dimbale la jàppale la mhm. am ci ñoo xam ne amuñu chance boobu alors que ils ont la compréhension que ni xale yii kat daj nañ li ma daj wala xale yii kat bëgg nañ li nga xam ne amuma ko woon man ba ma ca tolloo bëgg ko donc dinaa leen ko yombalal loolu c'est pas donné à n'importe kii donc Wally gàcce ngaalaama la nu koy wax yal na yàlla guddal fanam wéeral ko mu sut baayam ba aw fan ak yaayam ja ba li mu yéenee ci xale yi yéene ko musique sénégalaise bi mu jëm ci kanam yàlla may ko ko moo képp ku leen ko yéenee waaye nag Baye Mass kii daf ni booy booy déglu booy déglu Wally booy déglu euh, Baye Mass euh, autant pour moi Euh, nee na moom bu koy déglu da ci yëg yàlla man bu may déglu Baye Mass par exemple du ma ko ko weddil te it même sensation boobu laay am mais pour ma gën koo moderniser gën ko wàccee euh, li tax woy wi di garaaw mooy man waali buy way da nga ciy sentir Thione Ballago Seck waaye Baye Mass buy way da ngay sentir typiquement Thione Ballago Seck seetlul nag li ma la wax ku xam aar nag laay wax nooree ni duma bàyyi ma fen Baye Mass buy way da ngay sentir ni moom sax rythme Thione Ballago sekk la ñëwee xam nga ban mooy lan mooy rythme Thione Ballago sekk benn benn gaam la doon woyee déglul Baye Mass wayam yépp benn gaam la fa la ko teg te day neex lool tegu ci temps tegu ci heure ak axe waaye bi ci topp mooy Thione Ballago sekk dafa waxoon ni woy bu diglewul yeetewul doonatul ay woy ay naxaate la Baye Mass teel a comprendre loolu ñu nekk ñu fii pour jeter qui que ce soit ay fleurs mais ku ko def ku ko wax la bëgg dafa ñëw di joxe ay leçons ci xale bu toll ni moom xale bu ndaw mais macha allah am expérience waaye tamit am xelu ne man musique bi bu ma ñëwee kat au may ñëw di fi di di di way ay wayu bojo bojo di def ay taf yëngal du ma ko def damay way topp ci samay tànki maam wala topp ci samay tànki baay. donc yoon woowu mu nekk di di way loo xamante ni ku ko dégg barki Dembo Ndiaye wayam bi mu tuddee euh, su ma jumul yàlla. way wi nga xam ne suñu borom la ko tabb way ko ko way woo xam ne soo koy soo koy seetaan wala nga koy déglu nii rek saa nga gis image rek dafa maanaam artistiquement parlant da ngay am chair de poule parce que il a la voix il a du talent mais aussi euh, maanaam yaru gi wax wéyul bi nga xam ne si xolam la ko. non mais sérieusement da ngay da ngay xam ni kii talent kese la. donc catuma ko sama xaalis xii na yàlla na ko yàlla lafal cat làq ko fu yàq àggul mais man jàpp naa ni am na wàll ci musique bi te it euh, bari na ñoo xam ne dina leen raw ci musique parce que dafa teel a xam lan mooy dëggi-dëggi réalité bi nekk ci aar bi donc macha allah euh, te it lii dina dina doon lu garaaw parce que ñaar ñoo xamante ni dañoo dañoo xaw a nduru ndaanaan. donc loolu moom euh, ndaanaan rek lay doon. wayu ndaanaan lay doon. of course alors moo ngi doon euh, comme ni ko nanaa waxee ak ki nga xam ne mooy Ousmane Noureyni euh, kuy gën a félicité mooy ki nga xam ne mooy Baye Mass comme ni ko Ousmane waxee Wally Seck <laughs> duñ continuer di ko félicité parce que bu ñu ko félicité moom chaque jour fi la ngay chaque jour si ay félicitations lay nekk. donc mais Baye Mass encore une fois courage bon courage bonne continuation euh, encore une fois tu félicitations parce que tamit gëm naa ni son bi euh, di la mën a yóbbu fa sori waaye tamit dina mhm. yóbbu fa sori tamit nga xam ne mooy Wally Ballago Seck parce que du yow boo gis euh, dina am koo xam ne dina am lenn nga xam ne yokk na ko si si sa si sa si sa côté artiste donc mooy noonu alors comme ni ko waxee à chaque fois boo déggee muy woy da xam ne maanaam kii talent kese la. waaye man leen laax gën a fonkee mooy sopp mi nga xamee ni sopp na ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc loolu foo tax ma jàpp bu baax a baax alors bon courage frère vamos alors euh, Binette xaw ma lu mu neex neex dinaa dinaa dugal loo xam ne ma bokk si alors euh, Nana. Hmm. daal yi moom rafet na daal yi moom Nana na bu si critique daara. gisuma yàlla dogal na ni gisuma ko. Eh, dama ko jubal te waaye noo dem wane ay dàllam. wala li moom tamit bëgg na coow wala li tax nga bëgg ay coow Nana daal yi moom. lii dafa lëndëm ci man est-ce que ko woon sa téléphone. man de lii dafa mel ni xaj bu tëdd la la may jox nii de. xaj de xaj bu tëdd maanaam pour wan la ne la gisuma daal. Euh. waaw pour wan la ne la gisuma image bi après. Eh, gisoo allah daal yi dafa rafet daal yi góor yàlla piir ah. Ah, góor yàlla piir mi ngi. yow tamit nag yow da nga maa bëgg a dugal ci polémique rek waaye waali du def daraay bojo bojo waali du def daraay taf yëngal te te te wax dëgg yàlla dàll per yàlla dogal na ni sax dàll yu ñu yu ñu étranger dafa xew ci góor loolu yàlla dogal na ko donc euh, tubaarikàlla laaw la cat man su ma xamoon fu waal yi di jëndee ay dàll sax damay dem jënd ci sama boroom kër gi paja pajal waaw waaye waali xam nga ne du sol daraay taf yëngal yi dàll yi góor yàlla piir la ah. waaw. Ouz yow moom daal di dégg ma may daal di amoo loo soxla. Hmm. ah ku mën na def rek lii laa ku mën na def ku mënul def nga nga sol la nga am te fier ci te bañ a gis sikk. dëgg la. ku nekk daal li nga am solo. Hmm. te bañ a sikk wax ji jarul muy bari dëgg la ku mën na def. Hmm. Oh. lii waale di sol daal ku ko mën na ko sol waaleen di sol yoo xamante ni ku ko fi soloon doon baabu mbaagolo wala ceeli. soo ceelee ni mu bëree ci mbedd bi ndax day day day waale day sol benn mbir rek. Mhm. ñu foog ni ñoom solable na ci seen yaram. waaw te bokkul xam nga xam nga nit ki da ngay am. Mhm. corps vestimentaire. Ah. waaw dafa am. ah. xam naa loolu mooy yow xamoo loolu. yow pour yow lu nanaa sol rek bu ko ak ku solee dina ko jàpp. wala bi nekk lay def ci moom ëbëj. maa ngi jégalu je parle yi daal. waaw dama lay wax xam laa. dama ne la dàll yi góor yàlla pire la waali sol man mii maa ko wax. Ah. dàll yi su ma xamoon fu ko waali jëndee dama koy jëndal sama borom kër solal ko ko xanaa dee nga. waaw pour wan la ne la góor a koy sol. nanaa la nanaa jéng moo toog nii di wax ak yow. am na ci yéen quoi mais dama du ragal mu ragal mu jàpp. <laughs> mu jàpp gaynde nag ma wax la. oui ma gaynde nag ma wax la. waaw bu soobee ma wax la déedéet. kaay ma wax la. kaay ma wax la. man biir na ma ni ba ngay wax naan bari na lu waali di sol ku ko fi soloon doon dund golo doon ceeli gu xaw ma lan ak lan ak lan. pee ci yow. boo ko soloon di nga mel ni golo gu tawte. moo tax du ma sol nangu naa danga may déglu nangu naa mais dama ne je ne yoon nekk si. waaw ah, continuer pour nga wax. yaa ngi may dégg. nga ni sol. waaw comme benn ci man waaw. boo ko soloon di nga mel ni golo gu tawte. dëgg la dëgg la dëgg la sama gaynde gi nga xam ne moom. waaw moo dàq waaye ah, dàq dàq ku dëgg la dëgg la waaw ah, kay dëgg la macha allah jërëjëf moom bu ko solee mel ni waali. waaw bu ko day dàq waali day dàq waali allah oh gaynde gi nice gaynde gi nice nice macha allah gaynde gi. <laughs> alors moom noonu merci oh, beaucoup. <laughs> yow sama noon nga. yow sama noon nga. lu ma tudd turam. Ah, naa ma kii du yow. ah je suis là. c'est moi Nana. moom wax dëgg yàlla ak yooyu tamit Nana wax li ma waxoon korog. <laughs> wala bi ngay wax damaa téye ndax damaa tiit gisoo ni ma téye maa ngi xaar bàyyi non mais c'est c'est du capture nga mën du capture rek nga mën yow capturer sa liggéey. <laughs> dootoo ko demat <laughs> non dafa rafet sincèrement. Ah, te te dàll yi dafa universel. dafa dafa universel. non mais sérieux sérieux. <laughs> ratamba taxin ratamba taxin ratamba taxin ratamba taxin ki tambran taxin tambran taxin tambran taxin tawral ki taxin tal ki tal ki tabir ral ñu def. rëdëdël rëdëdël rëgin. dégg nga rëgin ta ta gën ta ta. gën gën gën gën gën gën gën gën gën gën nga def nii. Moussa Waly Seck ngay bañ a dégg. par la force di ngeen ko dégg. <laughs> vam vam. vava. mais daal di ko amuloo soxla naa nii. dafa na wax daal góor la. waaw man de sama xol. dama déggoo li ma la man yemuma ci góor sax yam pare ci. Eh. Eh. daal góor yàlla tigi. sama boo koy seet jàppal daal li waali ko dama ne. nooree nii. nooree nii. dama ne. danga ni. dàll yi waali balaago sekk sol boo koy seet. boo koy seet. da xam ne dàlli góor yàlla pire. dàlli góor yàlla pire a ngi nay. jërëjëf Nara waali sa dàlli góor yàlla pire. <laughs> yàlla mën na loolu. ay <laughs> waay man naa yem kii nanaa la naa yem te xam ni dama <laughs> mu ngay